amul genn nguur guy fekk baykat ci fa mu nekk ni ko dama lay développer wala dama lay tabaxal kër boo nekkee jeune am ay tool yàlla ji taw yow yaa am yaay am pexe ci wàllu mbay mu alternative nga xool suuf sa nga nekk jamono jooju lan la méngool est-ce que ñambi la wala nangam mais bu dee toujours gerte dugub gerte dugub rek rek te gerte gi boo ko bayee c'est vrai que gerte am koom la gerte or la Mohamed hmm. mais dafay fekk nga xam valeur bi donc toujours ci laay yee sama mbokki baykat yi gerte boo ko amee doo ko jaayi coopérative doo ko jaayi sekk loolu jamono la woon xewi na hmm. boo bayee ba noppi yaa koy téye gerte amul luñ ci sànni du xott bi du kemb bi du buuse bi du ngooñ mi saaku ngooñ léegi ñaata lay jar hmm. donc nga xam ne lii dafa am valeur donc ñoom ñooy ñooy soppi seen bopp ci kambuk mbaadoola gi nga xam ne ca la ñu leen dugaloon depuis tubaab yo ba léegi ki ci topp muy wàllu yoon yoon moom foo dem dañ koy jooy partout mu ngi wax diggante jandeer ak Pout mais diggante ngexoox tent ba ba taset na fa tali boo xam ni laataa Ablaye Wade la woon bokkoon na ci li ñu planifié woon diggante Idrissa Seck bu nekkee premier ministre ñun dañ koy continuer tali bi Thiès la jógee ba taset mu taxaw fa diggante taset jaar kër Ablaye Diaw xabbaan kër Moussa Anne kër xaali tent bab ba ngexoox boo fa awee sa otom da yàqu te loolu fukki yoon aw nañu fa ni euh, dañ koy defaat te yéen dëkk boo dem yoon la ñuy jàmbat loolu nguur gi bàyyi na ci xel bu baax mais bi gën a garaaw Mohamed am na ay lamp lampadaire yi nga xam ne. est-ce que nit ñi tamit mënuñu yeewu ci politiciens yi ñëw quand même di leen proposer lu mën mënta nekk ay lii laa di defal te après ca cappaandaw la dara du ci du ci du mais xam nga ki nekk ci àll bi li mu mooy changer ak di folli. parce que ki fa ñëw dig leen loola dañ lay folliwaat keneen ki ñëwaat digaat leen loola c'est-à-dire que ñoom ñi jiite tey diggee ñu dul wax dëgg ma xam mënoo leen a poñe mënoo leen a dab ma jox la benn exemple bu tuuti tey boo demee ci ville yi néew na ay commune yooy dem awal yoonu Mbour bi wala beneen yoon yoonu Thiès wala yoonu Louga ay commune yu bëri boo fa jaaree da fay fekk ay lampadaire yu ñu samp tey maire bu Sagata Guèye maa ngi gis mu def benn commentaire benn benn benn contribution nee na lamp yooyu cinquante mille lampadaires yooyu pour village yi la woon diggante village yi nañu def fa ñaari lampe wala ñett wala village yi nga xamante ni bi xëy na Senelec dafa yóbbu courant parce que investissement ba muy laaj ak nombre nit yi fa dëkk investissement à perte lay doon mais xam nga lu ñu def politiquement dañu jël lampe yooyu cinquante mille lampadaires yooyu xañ ko village yi def ko ci ville yi ñu ngi koy installé tey dëkk boo dem am na non seulement dañu ko def ci ville yi mais permettre maire yi ñu seen i ay quartiers nga xam nee nañu fa la seen i ay militants dëkk muy xeetu càccin ak jubadi goo xamante ni bii maire ci seen bopp ñoom ñoo ko jëkk dénoncé loo xamante ni nag état war na ci wax parce que xaalisu contribuable askan wi yépp la bu ñu amee benn projet ñañ ko jagleel na dem ci ñoom bu ñu ko def def defu politique comme ni muy comme ni mu amee ci dëkk moo tax dëkk bi du mës a du mës a développé parce que nawlu wuñu ñi ñuy wax ay kaw-kaw nawlu ñi nga xam seen loxo jotuñu seen ginnaaw. très bien Birame Touré sa xalaat ci xalaat yi fi jot. waaw yaakaar naa ne euh, ngi wax sànq ci yi ñëw digle lenn euh, les promesses n'engagent que ceux qui loolu la tubaab bi wax. Mm. Euh, dafa am loo xam ne nga ñëw dig ma ko bu fekkee ni def nga ko xayrun boo ko deful am na loo xam ne tamit nag charte la ndax tey sànq ñuy wax ci cheminots yi nga xam ne ñu ngi ci grève actuellement Euh, depuis deux ans Macky Sall dem na Thiès. dajeeg cheminots yi dig leen lu tolloog 621 millions de francs yoo xam ne dañ leen ko waroon a fay sans délai. ça fait deux ans maintenant et en tant que chef de l'État c'est-à-dire que tey président de la République euh, bu fekkee ni dafa am lu mu wax ne ni nañu ko doxalee noonu nga gis ni ci ginnaaw li mu waxoon ba wax ko conseil des ministres mu nekk ci journal officiel amul benn début de solution ça veut dire donc tey état ci boppam moo war a xoolaat boppam par rapport ak promesse yu muy joxe bu fekkee ni ci wàllu politique la leneen la waaye nga nekk ci nguur nekk président wala nga nekk ministre tey grève lan moo koy indi mhm. parce que dafa am ay promesse ñu bind ko président ne nañ ko lijjanti boobu ba léegi gisoo ci lijjanti ñu wax ci wàllu éducation même chose bu fekkee ne président day wax lenn muy tegeeku ci ginnaaw mais c'est euh, loolu nag dafay gën a nasaxal état ci boppam ba nga xamee loolu li ñuy tubaab di wax naan les promesses d'engagement que ceux qui ceux qui y croient loolu c'est dangereux bu fekkee ne dañ ko jubal ci nguur gu fi nekk doon uh, lu am solo uh, jërëjëf uh, Birame Touré naka noonu itam El Hadj Mamadou Mansour Diop yéen itam mbokk yi cant ak ngërëm ñeel na ci kóolute ak tàmm ak safoo gi ci Sen TV chaîne leader ngir di fi taataanee xibaar ci kanam tuuti 21 h bu mag boobee di grand plateau dina dëkk ci plateau yu lu may loolu ñun ñu jox leen di day incha allah ëllëg ci lañ jotawee xibaar jaa ngeen jëf.